ma tàmbala. bi ngay final général bu Malika. waaw général Malika laay final. xam nga ko quoi. xam naa ko nii rek mais mos ñoo bëri quoi. c' est la première fois ngeen di daje. waaw c' est la première fois ngeen di daje. noo gisee final bi. final bi ah jël ko rek incha allah rabi. donc mos a yéene bëre général. bëre rek. Ah. waaw bëre rek. Ah. waaw waaw. looy wax say supporters ak ki lay suivre di la béy. waaw maa ngi nuyu samay supporters yi bàyyi ma benn quoi ci ma xamante nuyu waa Bargny bu baax a baax a baax nuyu waa Yène Todda fu ma nekk ah, ma seen nuyu baax ma si bu baax a baax di nga. borom Sali waaw borom Sali borom Gambie bàyyi ma rek sa fa moom moom mel rek moom la barke Seydina Mohamed bu ñu jàppee ba doon bàyyi maa ngay sant di gërëm di ñaan yàlla jël lambal nekk si kàddu yàlla waaw loolu laa ñu naan. acca kële bi yor ginnaaw bi ñu la nuyoo nag ziar baalu la àq si wéeru koor bi di la baal àq xam naa sax daawoo woon parce que yaa ngi maas macha allah mais maa ngi lay bëggee. avant tout mooy maa ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di baal ñëpp àq ci koor gi ñu jugee di baal ñëpp àq di ñaan yàlla nañ suñu borom boole jéggal quoi di leen nuyu yéen ñëpp. daa mel ni namoon ngeen làmb ji. waaw namoon làmb ji moo tax ñu ñëw bëre si quoi. ku daan compétir chaque semaine boo toogee weer bi defoo dara rek da nga koy namm quoi. ndeysaan noo gisee làmb ji daa mel ni tey de. waaw yëngu neex na mbër yi ñëw nañ. am na ambiance quoi vraiment. nga war a def final. nga war a def final di ñaan yàlla suñu borom suturaal ma. est ce que mës maa ngi ñaan yàlla may ma ndam ci kaw. looy wax ñi lay bëggee. maa leen di siyaar di leen bëggewaat di xam ni xam nit bu ñuy sonn rek ñi ñuy béggee ñoo tax ndax saa su ne dañuy woo di ñu encouragé di ñu dooleel dinaan leen ñu gis message yi mais xam nga yéen yéen tax duñ bàyyi quoi di leen béggee ñoom ñëpp di nuyu waa Malika bi yëmbal benn baraag buun Kër Massar àll ba ñaax montagne mbëbës bëggee suma gars yëpp quoi. ñu lay bëggee ku si mel ni Issa Lofou nee naa ko sa mbër bi français la. non yow xam nga ne man du ma français man bàyyi fa laa. Ah. mais mooy loolu Issa Lofou maa koy bëggee di bëggee sama mafia bi sama gars ma àndal fii ak sama gars ma bàyyi ko. si mel ni Mansour depuis Liberté 6 mois. waaw Mansour aw ma fayam. kenn du moom station moom mooy loolu noonu dafa may bëggee saa su ne. koy bëggee di ko siyaar di nuyu tamit sama mafia bi tamit yi àndal di entraînement nuyoo bi teg ci loxo Doole suñu ndax gis nañ ni koor yëpp ñoo ko àndandoo liggéey ku ci nek gën ko bëgg sa morom. dara doole ancien couloir yee ma ngi koy bëggee bu baax di bëggé gaa yëpp. di la di la naan ndax yaangi wajjal le 21 jaxaw sin jaxaw suma dëkk la lool suma la lay won woon keroog la lay won ni ma mom jaxaw lool suma ko wajjal lu damay tooñ buñu dajé jaxaw nga xamni ne borom jaxaw sargal Badara ndjay lu leer la la wax lool suma suñu suñu bës la. inshallah wa du won la démé ma ngi lay bëggé di la bëggee yow tamit. présentation finale. da ngaa gudd torop nga dugg ci bir affaire yi. jël naa gudd ko lool waaw ndeysaan 17 litres lañ woon di le 3 mai waaye mën nañu la 4 rek ndax instant yi ba set jot na ba pare waaw fii si Gandiaye ASC ndox mi woote fi quatrième édition waaw waaw drapeau Ousmane Ndiaye mu àndoon ak monsieur waaw waaw ak ki nga xam ne mooy Pape Ngor Thiaw Pape Sonko Diop di monsieur le maire yor commune Gandiaye waaw diggante général Malika la ak Ndiol Géant njool da koy kal wala général da koy zongale kuy yóbbu ndam li barñi la jëm wala malika si noonu laay nuyu sama papa Père Bos Diouane sama doom ji waaw waaw waaw waaw fobbanti ko général fobbanti na ko takk na ko ko jëmu me yer waa koy jabar ndeysaan di nuyu waa lamb Sénégal naa leen le 21 mai ñu ngi di jox rendez-vous fa nga xam ne mooy campement mise 1 waw waaw waaw g waaw waaw ñool géant koy këlëng-këlëngee di ko jayi di wax ne rek ndeysaan le 22 Babacar Kër su dee ceetal waaye Ngor Dangaan day ceetal le 15 le 8 Gane Diofane day ceetal waaw le 14 Maki Pro day ceetal moom tamit eehe ca ceet ya la damay yëgle lamb ya laaye waaye di jox rendez-vous drapeau chef de l'état waaw waaw Ndiol Géant koy kot waaw waaw mu ngi bëre ci kawam Ndiol Géant ak général Malika waaw waaw général nga koy jéema mboot Ndiol Géant bañ na lamb la ndeysaan li traditionnel di nuyu sunu père Manga 2 waaye Alex Ka ñu ngi koy nuyu Antoine fàttewuma la mi laa ko tuddee waaw Malick Ngom arbitre international kon di jox gaañi ñëpp rendez fa nga xam ne mooy drapeau chef de l'État sa Diourbel 14 Sénégal war a daje waaw waaw waaw ngeen xaar laal yoon ndeysaan ak kaddu amateur ak journal ndeysaan li nga xam mooy drapeau chef de ñu toppal leen ko lépp day neex waaw waaw day neex tey rek ndeysaan ñu jóge fa nga xam ne mooy Mbour waaw waaw oh eh eh arbitre waaw waaw eh la ilaha illallah waaw loolu dañ koy lijjanti loolu dañ koy lijjanti sa table ja lañ koy lijjantee sa table ja lañ koy aw ñaari sit mo am ñaari sit mo am ci biir combat bi casa